mairie bu Touba wéy di tàbbal loxoom ci xeex bi nga xam ne ni àdduna wërngal kàpp ñu ngi koy xeex mbas bii di coronavirus gannaaw ay jéego yu am solo yum defoon lu tolloog fukki junney masque fas na ko yëkkati séddale ko askan wi yeewoo fii ci Touba tey ci àjjuma ji nag lu tolloog juróomi junney masque séddale nañ ko diggante marché Ocass bu Touba ak jumaay ju mag yi Alaaji Njaay programme di kenn ci ñi toftalu ci maire bi mooy leeral liggéey bu am solo bilee xeex bi jëyegut te euh, feebar bi moom jàmbaar la joo xam ne faaw ngay bëree moom waxtu wu ne moo tax ñu jógaat itam xoolaat yi nga xam ne médecins yi wax nañ ko ak ñi nga xam ñooy saytu mbir mi ne ku koy jëfandikoo yàlla mën na laa dimbale ba feebar bi mën a bañ a law ñu gis ne nag euh, kon ay masques yi nga xam ne wax nañ ne kenn ne war naa am masque ñu daal dem commandé waat ay masques 5000 masques indi ko ngir tasaare ko ci marché Ocass bi nga xam ne ñëpp si bilee nañ ne wane ne fan yëpp ñu ko tëj wane ne fi la feebar bi li ci ëpp fa lay génn ñu demoon nag kar ko foofu joxe yooyu joxe fa lépp loo xam ne ñu na mën rek ay matuwaay ba ñu fa jógee ñu jàll si waat ba am na benn benn bi yoore julli si ñu ne ñoom ak ñi nga xam ne ñoo fi jaar ñoom itam jox xam ne commune Touba ko ci jamono ji nga xam ne nii nag cas communautaire yi mu ngi wéy di lambaajoo diggante Mbàkke ak Touba takkum masque ñu dégle ko ci lu mel ni marché yi ak yeneen bërëb yi nga xam ne nii ay nit dafay dajaloo rawatina ci dem bi ak dikk bi masque nag nekk na loo xam ne nii askan wi ittewoo na ko waaye am ko ba mat sëkk jafe na lool looloo tax nag jëf ji nga xam ne nii moom la mairie bu Touba def def na ko ci waxtu wi nga xam ne nii askan wi soxla nañ ko lool. gis ni ko nit ñi def xam naa ne kuy seetlu image yi da nga xam ne nit ñi soxla nañ ko lool loolu lan la daf ma motivé waat ngir ma commandé leneen yokkat ngir loolu lu bëri la loolu moom dafa wane ne dana war a yokkaat Koumani te incha allah danañ yokkaat Koumani jox ko askan wi ndax ñun askan wi rek lañ fi nekkal ci seen bëgg-bëgg la bëgg nañ ko kenn xam nañ ne bëgg nañ ko waaye mënuñu am ñi nit ñaa ngi koy am jaay ki nga xam ne mënut a di ko may kooku loo ko may doy kon incha allah fas yéene ñëw dolliwaat dolliwaat ba mat ñëpp daal bu ñu sañoon Touba ku fi dëkk ku ne am nga maas. liggéey bu am solo bi nag ñu ngi ci ànd ak kuréel gii di association Bawol Mbooloo lëkkalee ay dongo ak ay étudiants ñoom nag ci jamono yi nga xam ne nii bër nan ngir xeexub coronavirus ñoom itam ñu tàbbal seen liggéey ci xeexub coronavirus ànd ak mairie bu tubaa ci njiitu soxna maam Faati Mbàkke kuréel gi kat bokk na ci ay yiteem muy ñaax askan wi ba ñu bàyyi xel lépp loo xam ne nii dafa jëm ci feebar bi ak loraange yi ci aju. waaye dafa am rek lu leen di wax suñu xalif général kulli murid Sëriñ Muntaxa dafa génn joxe ay kàddu yëkkati tamit ci alalam. jàpp pour ñu xeex euh, pour ñu xeex mbas mi jël antigel def ko ci la kon ku koo xamante ni murid nga te muridullahi ngay wuyoo kon amaan na war naa gëm li nga xamante ni moo di feebar bi te xeex ko ci noonu tamit ñuy lancer benn appel képp koo xamante ni rek murit nga seexu naa seexul xadim ñor la ñu ngi lay naan nga mooy ndax Touba kat la jamono jën toll cas yi ñu ngi fi bëri rawatina les gannaaw liggéey bu am solo boobu nga xam ne nag ànd nañ ko ak mairie bu Touba association Baol Mbollo fas yéene ni rek yem ci séddaleem masque ay jéegoom bokk na ci nag wër mbooleem askan wi yee leen ñaax leen ñu gën a farlu ci lépp luy xeex coronavirus waaye gën moytu lépp lu koy tasaare. sensibilisation porte à porte dem bi nga mi nga xam ne ni maire bu Touba woon na ko ci ajuma ji diggante jumaa ji ak marché okaas benn la ci jëf yi nga xam ne nii amaloon na ko na ko jekk ngir xeex coronavirus ginnaaw ay gel ak ay dund yoo xam ne nii séddale na ko ci askanu Touba beneen jëfa ngi nag di firndeel ne mairie Touba saa su nekk loxoom mësul génn ci xeex coronavirus ni ko askan wépp di defee